liggéey surtout nag ci lu mel ni désencombrement nga xam ne dëkk bi day xaw a am nu mu demee rawatina at mi alhamdulilah taw bi bëri na lool dëgg la taw yenn saa yi xéwal la yenn saa mu am yu mu andi waaye bëri na lool ba nga xam ne yenn activités yi yomb ci woon moo taxoon ñu ne ci wàllu organisation nañ ci profité taxaw tuuti saytu càmbar ñun li ñuy def xool li ci baax xool li ci waj mata euh, peut-être euh, defaraat mottali ba nga xam ne liggéey bi nañ ko mën a def na mu waree donc looloo waroon euh, ñu ñu taxaw tuuti waaye nag liggéey bi ñu ngi ci sant yàlla ndaxte am na bërëb yoo xam ne mën na am kenn mësul xalaat ci Ndakaar ci Sénégal ne mën nañ ko désencombrer ba kenn du fa ne lu mel ni stade de l'amitié lu mel ni muru stade Iba Mar lu mel ni euh, ancienne piste ak yeneen ak yeneen am na ndabit ay points yoo xam ne yombul woon dem nañ fa jéem nañ mais mën na am euh, yàlla dogalul mu sotti niñ ko bëggee woon danañ fa demaat nag ndaxte ñun am nañ dogu ne dinañ ko dinañ def liggéey bi ni mu waree donc tey euh, dañu ñëwaat fii avenue Malick Sy tàmbali ko jëm RTS jëm Sirnos jëm poor bu subaa defe naa dinañ dem euh, booru Rëbës euh, li wër prison bi yëpp ne waxoon naa leen ko nee naa leen liggéey bi dañ ko tàmbali woon am foo xam ne buñ ko désencombré ay bac à lañ fay teg mu jig am foo xam ne it ñu désencombré ko teg fa bac à fleurs teewul nit ñi ñëwaat fa am foo xam ne biñ ko désencombré ay barbelé lañ fa teg teewul nit ñi ñëwaat donc ñu nit suñu doxalin luñu def mu baax ñu continuer ko waaye lu ñu def te doxul fañ ko def ñu ñu ñu càmbaraat ko seetaat lan moo ci war donc euh, tey mën nañ wax ne succès yooyu ñu yàlla dimbalee ba nga xam ne am nañ ko ci lu mel ni ancienne piste nga xam ne ëpp na un kilomètre d'avenue ñu dégagé lépp semaine bi dinañ commencé liggéey foofu def fa aménagement yu bees def fa ay jardin public donc tey am na 114 mètres sur les 1 kilomètre 200 yoo xam ne dinañ ko def ci mois de décembre bi tàmbali ko di woo tamit suñu partenaires les partenaires privés ñi nga xam ne ñoo yor entreprise yi ñi nga xam ne dig nañ ñu ne bëgg nañ jàpp ci liggéey bi defar espace public yi bu ko defee ñu mën a sécuriser def loolu nga xam ne moom mooy mbébétu président de la république bi gën a set gën a organiser espace public yi ñu delloo ko fu nit war a dox mën fa dox waaye tamit fu nit war a Euh, doon bërëbu liggéeyukaay ñu def ko mu doon bërëbu liggéeyu liggéeyukaay. waaw fi ñu amul succès moom dañuy seetaat rek ndaxte loo jéem te mën qualité ñuy sotti mbëbës cinquante pour cent yëpp suuf la ak gravat de chantier kon nit ñi dañu war a ñu ñu gën leen yee ci gravat de chantier ni ñu koy jëfandikoo ndaxte mën na jëriñ leneen lu dul di ko sànni ci mbali donc ñi koy def tamit service d'hygiène dina leen wër suñu brigade bi dina leen wër ba nga xam ne kuñ ci jàpp dinga nga fay amende deux cent mille wala ñu defeere la loolu yëpp nag bokk ci matuwaay yi nga xam ne moom la ñuy waaj jël ko doxal ko. Euh, dëgg la dëgg la fourrière municipale Dakar dafa xat ndaxte defe naa matul 5000 mètres carrés 3000 wala 4000 mètres carrés la te léegi département de Dakar yëpp ak de Dakar daanaka fourrière bëriwu fi loolu moo tax Euh, fi mu ne nag président de la république jël dogal bu am solo cinquante hectares ci commune yu yenn booru Nduxura boo xam ne dañ ko. ci ci ci ci ci wolof euh, euh, mooy ñun bi ñu gisee ni Dakar kenn mënatul dem kenn mënatul dikk parce que nit ñi ñi ngi taxaw ci trottoir yi ñu ngi fay def ay ay ay ay ay garage mécanicien ay gargote ay loo loo xam ni rek day ñaawal réew rek moom la ñu gis ci ci capitale bi léegi nag ñu jël ci ay matukaay. en tout cas le ministre Abdou Karim Fofana initier ay opération yoo xam ni pour dindi en tout cas pour xàll yoon léegi loolu man la ko confier mooy def planification bi ak diriger opération sur le terrain et matukaay yu ñu jël nag mooy jël ay moyens lourds dindi loolu lépp mais tegul ci loolu parce que bu ñu dindee aussi il faut ñu xool ah ndax nit ñi dinañ ñëwaat ñu def benn dispositif préventif mooy xool ñoo xam ni ay écovigile la ay ASP ñoo xam ni force de sécurité yi police gendarmerie ñoo leen jàppale seen liggéey pour que ñu bañ a ñu ñu ñu a saytu euh, bërëb yooyu nga xam dindi woon nañ ko ba pare nga xam kenn du fa mun a ñëwaat loolu mooy disposition yu ñu jël et puis jëlaat ay yeneen disposition yoo xam ni ah, euh, sur le plan réglementaire que képp koo xam ni fekk nañ la ci kaw tali bi ñu gindi la nga dellusiwaat ah yoon dina dal sa kaw bu baax a baax a baax amul dara parce que loo xam ni la pour population yi te population yi ñoo ko bëggal seen bopp autorités jël ci ay matukaay yu yu yu wër def ci moyens yu consistant donc loolu moom duñ ci baal kenn kenn kenn.